aousubillahi mina sheytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin mbokki julli di mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu eh, yéen a ngi ànd ak seen yéen a ngi ànd ak ñun si seen site internet Ahibahil Khadim TV eh, ci màggal Serigne Touba gi nga xam ne ñu ngi ko defee ci Touba Darou Khoudoss eh, ñu nekk fii si jumaay Serigne Touba ji ci barab di jàkkaroog nii barabu Cheikh Mouhamadul Moustapha moom mi nga xam ne moo fi andoon ko tedd ki di Serigne Touba bañ koy fàttaliku ci bisu tey jii nii mu moom moo ko joxoon Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Mouhamadul Moustapha euh, doon ko euh, ba tey ni mu agsee ci toogaay sëriñ Ahmadul Muxtaar waaye sëtam bu baax bi jëwriñu ñu baax ji di sëriñ Mouhamadul Moustapha moom sëriñ Mbacke Mouhamed euh, moom tamit di ko taxaw taxawaay bu am solo ànd ko ak mboolem ñi nga xam ne ñooy daayira Ahbal Khadim ak mboolem jullit yëpp. ñu ngi fii ci barabu sëriñ Cheikh Mouhamadul Moustapha fii ziar bi comme niñ ko gisee nii rek ci image yi nit ñaa ngi ñëw di ziar si. mbooloo mi macha allah fépp foo génn rek ci dëkk bi mi ngi fees dell ak i doomu aadama ngir ñëw ziyaara si ci li nga xam ne mooy barab bi di barabu a Mouhamadul Moustapha ak barabu Serigne Touba Xaadimal Moustapha sallallahu alayhi wa sallam kon incha allah su ngeen ànd ak rek lépp loo xam ne tukki rek dangeen ko ko am en direct ci Ahibahil Khadim TV. jikkeel ahmaduna Moustapha Madi Taw bu xam ne jiw rek ngeen bayoon njëkkee laxmaduna Mustafa ma di jaaw ba ngeen xam ne juuren mi ngeen bayoon daaw te tànnam gala def Mustafa mu dib taaw mu tànnaat ko lu buur tànn weesu naa ñaaw sëriñ bee ko tànnal ci biiri tànniit jiwu tànn du jur buuse mbaate mbelliit sëriñ bee ko tànnal ci biiri tànniit jiwu tànn du buuse mbaate mbelliit turam waa ka déppoog taabaay ne leen kaar ne njoola Aminata gën ku def yaakaar xaliifaam ya mu tànnoon te yow man ak waab ku leen peese mu wat leen ci xeeti taqwaab li hoo sabku maal xor bi ne majaha xadiim nu xadiimin rasuulitaab muqiisun wa maleesul waraasu booba wasiirun wa imaadul waraa xutuuba ne leen wóor ne tafaay bamba dooma xam baay ne moo nàmp ci meenam ba fer ba mat waay ku koy weddi ne seet bis ba bamba wuy jee ñu toj kër ga ca njaareen ne dun bi day jee warum kun téléphone mustawa ca ñaaxeen mu ñëw yóbbu ko tuubaa ci kun fa yekkoon tubaab yaa tere teng yaa ci siixi njaareem mu waar leen te defal leen ba ñépp farlu keroog daama ko fal xudd muy xalifaam mu jiital ko ci baatin mu donnu lislaam wal waarisu àqan abu taaja huwal xawsu xadalil muridi aja wal waarisu àqan abu taaja huwal xawsu xadalil muridi aja fajal aajo yi faj aajo yaa ko lamboo te fóotal nu ma faasit ya xol ya lamboo karaamay desu xar baax ya yaa ko mu jébbal la malaan murel nga sangoo yérey bamba nga ràngoo mu neefu laa te baatin bi nga lamboo mu neefu laa laaj ni leen ndaama yu xooloom du yokku ay biir nanuy daw di koraamal roy dundu